asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi nga xamante ñoo ñu fi dajale di mbokki deret li ñu fi dajale daal jàmm rekk la ndax euh, olof daf ne wax ju ne jonn tontu gu ne jonn rek moom moo ko lijjanti li nga xamante ne moo ñu fi dajale ay mbokki neen lañu dafa am xew-xew bu fi xew démb ci alxamis ci sunu doom def ko muy Cheikh Gadiaga loolee nga moo ñu fi dajale tey jii ñi fi daje nag ay mbokki Cheikh di Gadiaga dong ñoo fi daje kii nga xamante ne kenn moo ñu jëmal di sunu kilifa maamam la ndax sunu sunu baay la moo jur asugay mi nga xamante ne que mooy ndeyam. yii ay grand kii grand frère la man suma suma sœur la kon ñi nga xamante ne ñoo fi daje yëpp ay mbokki Assou Gueye lañu nga xamante ne moo jur seex Gadiaga aki sëram ak i tàntaam ak i bàjjenam dong ñoo fi daje aki i càmmiñu Assou Gueye di nijaayu Cheikh kon ay mbokki neen lañu Cheikh nag ñëw na fi sunu ginnaaw ñëw ci sunu kër grand frère kër gaa ngi nii suñ paree dinañ fa yegg ay xale dong nag ñoo fa nekk ca kër ga ndax mag ñi fa nekkoon ma macha allah yàlla jëlee na leen fi ci diir bu gàtt ci fa jamono yi ñu génn muy sunu grand frère bi ak sunu grande sœur bi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër gi yàlla jële leen fi ci seen ginnaaw la Cheikh def propagande ba dajale fi ay mbokki boppam. mbokk yi fi daje nag démb xamuñu exactement lan moo xew xamuñu lan moo xew ba tax seex doxale noonu seex nag sunu doom la ci ñun la bokk bu jëlee yoonam ci ñun la bokk bu jëlul yoonam ci ñun la bokk bu xamee ne dañoo bokk moom ñun dañoo bokk moom bu xamul ne dañoo bokk ñun dañoo bokk ak moom ndax li ñu bokk ak moom mënuñu koo dagg ndax ndeyam ndax ëtt bii la yaayam wàccoon ya la la maamam wàccoon papam mi nga xamante ni moo ko jur jur ñu ñun kër gi la nekkoon néega ma tolloo moo moo nekkoon nii fi la la maamam bu jigéen wàccoon kon kër gi kër cosaan la kër gi kër la goo xamante ne que ni bu nekk fii la wàcc ci biir kër gi la mu def nag fële la ko defee ci ginnaaw mag ñi amul benn mag bu fi nekk mag ma fa nekkoon te génn kàddu ya mu génn démb moom xamul exactement lan moo xew boo tax mu génne kàddu yooyu mu génn mais bu soobee yàlla dinañ dem dina dina wax li nga xamante ne que ni moom la waxoon démb dina ko wax ñi nga xamante ne ñoo fekkoon jotaay bi yëpp it démb kenn ku ci nekk di nga jël sa parole la nga war a wax tey di nga ko wax lépp nga ngeen ngeen dégg ko na ngeen ko war a déggee kàddu la joo xamante ne que dañuy ubbi rek wax exactement li nga xamante ni moo ñu fa dajale kenn ku ci nekk di nga jël kàddu la nga ca war a wax di nga ko wax incha allah na nga ko war a waxee bu laajaatee ma jëlaat kàddu dinaa jëlaat kàddu la mu def nag mooy ñëw na ci sunu ginnaaw ci sunu grand frère bi nga xamante ne que ni moom mooy sunu kilifa actuellement ci famille bi di magu ndayam yaa ngi dégg di kilifaam it ndax lépp loo xamante ne que ni ndeyam mu ngi koy def ci kooku la jëm kookoo koy doxal lépp loo xamante ne que lu luy kilifteef kooku lay jëm muy Abdoulaye Nogaye di adversaire u kamu àndal ah di adversaire ka nga xamante moom la àndal ba tax mu ñëw fii indi fi nee na ay aide lam leen naxe nag mooy dajale leen ne leen dama leen di indil aide waxul ne waxul ne sëriñ buub moo leen fi indi wala kenn moo leen fi yebal wala dara dama leen di indil aide edd ya ma leen di indil nag sama am samay partenaire u bopp moo tax ma leen di indil lii ma leen fa yéene indil loolee nag amul sa mbokk boo xamante ne que ni nii nit am na yéene di sa mbokk wax ak yow ci kàddu yu rafete noonu te doo te doo ko xaar doo ko déglu doo ko doo ko déglu moo waral mu fekk fi ñam fi fekk ñay jël kàddu jël kàddu te la ñu jël ci kaw kàddu dañ ko teg ci ak mbokk moo tax ñu jël seen kaddu kenn ku ne def lang wax li nga seq ak sa sa yaayam wax li nga teq seq ak moom na mu gën a rafete kon lu ñaaw mënu faa génn la ñuy monter nag après lañ ko monter ci seen ginnaaw ñoom xamuñu exactement lan moo xew ndax lépp loo bëgg programme programmer mën nga koo programmer na nga ko bëggee ngir satisfaire ka nga xamante ni que moo la yónni te te sëriñ boobu xam na fi juróom-ñaari xelam may ko mu ànd ak Cheikh dugg fii ci biir koñ bi ji ji la juróom-ñaari xelam moom sëriñ boobu may may ko ko mu am mu ànd ak te loolu man maa koy def heure bu ko defee heure bu namee loolu na ñëw préparer yoon woowu ne day ñëw si jidda pour dugg si biir jidda feefu Ablaye Sow ne daf fi jéemu dara wala muy fi wax wax fii dara dafa làqatoon dafa làqatoon ak Cheikh ba Cheikh dugg fii def la muy def waaye nee Cheikh dafa jëw jëw la def ndax bu fekkonte ni ñi ma woon na la mu doon def munoon na woo ña nga xamante ne que ni nii munoon naa jaar ci buntu bi mën jaar bañ a jaar ci porte ba bu jaaroon ci buntu bi ba ñun ñëpp ñu xam lan la nar su boobaa di demee nii waaye nag loolu jàll na waaye li ëpp solo mooy li ëpp solo la mu def bu fekkonte ne que ni mu ngi ko bëgg defaat na xam exactement la ko cay fekk su boobaa dina xamante ne que ni dootu ko defaat ba àdduna tukki waaye li ma la mën a xamal mooy Serigne Mboup jàppal ne yow dañ laa nax. ni mu naxe xale yii nga xamante ñoo fekk sa jotaayu démb bi noonu lañ la noonu lañ leen noonu lañ la naxe yow Cheikh noonu lañ la wax yow Serigne yaa ngi dégg li ma la andi na kenn ku ci nekk mu jox la saakub ceeb ak junni enveloppe boobu la muy rëy rëy junne ci ne dara topp ca yaa ngi dégg ma lax naxe ko xale yi jox leen ko yaa ngi dégg ma lax waaye li ëpp solo mooy ñoom ñëpp bu fekkente ne que ne seex bëggoon na seex seex seex la la ko indi fii ba mu indi fi loolee bu ñëwaatee fi dinañ ko ko rembourser benn par benn ndax ñi ko ñi ko ñi mu ko joxoon ñëpp ñu ngi fi dinañ dinañ wax ci jotaay bi kenn ku ci nekk di nga jël sa kàddu di nga wax sa jotaay bi ne la nga ko indil ak lam ko indil mu ngi fi heure bu gaaree oto fi bu récupérer loolee muy saaku ceeb bi ak junni ba dinañ ko ko jox ba mu ba mu leer ba mu xamante ne que ni munta nax ñii mun na leen a nax ndax def na pexe ba nax leen waaye ñi ci des ñi nga xamante ne xàmmee nañu xam na ñooñu munu leen a nax waaye li ëpp solo rek moom na xam ne ah lii wéy na waaye dootul am ba àdduna tukki Cheikh nag na xam boppam cheikh na xam boppam nit su fekkente ne que ne nii gàtt nga ba kenn mun laa tëb gudd nga ba kenn mënu laa jéggi daraa tax ndax fi mu bokk a tax ñoo bokk benn maam ñoo ko bokk ñoo nag ndeyam kon am na loo xam ne sañuñu ko pour di ko def ci cheikh ndax suñ ko defee suñu bopp lañ ko def waaye wax ji lañ mën pour mu xam exactement naka la ak nan la bañ bàyyi xel exactement na mu war a doxalee ëllëg pour dugal ko ci biir famille bi yàgg naa def nag. musuñu cee dugg su musuñu cee duggal sunu sunu sunu kàddu yaa ngi ni ma la waaye nag bu fekkente dem na nag ba wàcc lépp na dugg ci biir famille bi bëgg a diviser bi su boobaa famille bi yëpp dinañ jóg te kenn ku ci nekk am nga ci loo war a def am na ci loo war a wax li ëpp solo nag moom seex na bàyyi xel loolu ba ndeyam dégg naa kàddoom tey ju suba lu wax ju rafet la wax amul lenn loo xamante ne wax na ko ci wax ju wax ju ñaaw magam mi mii mii mii maam Thierno. mu nga ca Touba dégg naa kàddoom waxam wax ju rafet la la ci wax rakkam mi nga xamante ne mooy caatu ndeyam muy sëñ Moustapha mi ñu tuddee Moustapha Mati mi nga xamante ne moo jur moo jur ndeyam ah wax ju rafet la ci wax kon du moom Cheikh moom moo war a mën a ñëw jaxase suñu biir famille tuuti na ci nag yem fa mu war a yem nekk ca la mu war a nekk ñu koy dégg ca lañ ko daan dégg comme loolu la opté problème am la du suñu problème ñun ndax ñun tal nañ leneen ludul li mu ne li mu nekkee moom ndax soxlawuñu lu dul rek suñu ñàq suñu ñàq lépp lu ñu mënti am suñu ñàq moo ñu ko gënal soxlawuñu leneen kon am na loo xamante ne kër bu lu dul suñu cër soxlawuñu ko kon moom Cheikh na xam exactement taxawaayam te na defaraat doxinam na defaat li nga xamante ne que ne ni moom mooy taxawinam ci biir famille bi looloo ko jig tey te moo ko jig ëllëg wasalaam baax na ni ah non Sow waaw dëgg la mbokk yu fi daje yëpp waa jur yi jarbaat yi doom yi sët yi ñoom rek ñoo fi daje bokk ak Cheikh Gadiaga lépp nag si ndeyam ba si baayam Ousmane Sow laa tudd Cheikh Gadiaga maag ndeyam ñoo bokk benn baay ki ki jur ndeyam at ki mu jur ñoo bokk benn ndey benn baay c'est euh, dugg na si palmarès boo xam ne moom daa waroon a fekk si biir diwaan bi kuy dugg si loolu mu téye sa loxo bañ laa weer parce que mbokk dafa nekk loo xam ne boo ko mënta ñëw rek boo ko tas te fii mu dugg nii waru fi woon a dugg mun nañ ko tuddee. loo xamante te ni dafa topp àddina te àddina yàggul le monde est te mbokk dina jariñ mbokk loo xamante ni nii alal du ko jënd xale yi fi fekk euh, démb bi muy def euh, parcours bi mu def démb xale yu xamunu Serigne Mboup ak Ablaye Sow lan lañ séq mu ñëw nax xale yi si xam-xamam moom parce que ceddo day ñëw xel fekk na xale yi ne leen yéen dama leen di indil aide sociale la xale yi defe ne comme que moom seen frère la ñoo yaayam ñoo bokk ndey ñii moom ñoom ñoo bokk bàyyi kon seex bu jógee pour ñëw jóge këram ñëw jëdd gi takk fi jabar kon ay mbokkam rek ko war a mën a tertu mais la taxoon mbokk yi da ko tertu doxu ko ay nax la commencé ba mu jeex ñi nga xam ne nag ñoo ko ñëwuloon dem ñoo ngi ndeyam ñoo bokk benn baay ñii ñoo ngi ndeyam ñoo bokk benn ndey ñii ay magu ndeyam lan ñii ay rakku ndeyam lan te loolu mu def noonu ndeyam da ko naqarlu mu doon lu ko métti lool ay rakam méttit lu ko magam Thierno méttit lu ko ñi nga xam ne nag ñoo nekk si famille bi bi demee ba dégg loolu seex def lu ñaaw loolu ñi nga xam ne ñoom la naxoon bi ñu demee ba xam ne sëriñ booba tax muy des ñoom ñëpp bu tey bu fi sëriñ boobu taxawoon seex taxu fi lu yéeme dina am mu yàlla sutura rek lay dunde te ñi nga xam ne ñoo dajaloo fii ñun boo dee xool ñun benn bopp lan te Ablaye Sow moom noonu muy jëndee Serigne Mbuub Ablaye yàlla moo ko tànn si biir famille bi ne moom mooy lépp si biir famille bi bu noppi nag mu nangu ko nag mu doon mag ju baax ju bari yërmande du politique de mais si loolu la nàmp yërmande at baaxam mu nekk loo xam ne foo ko wax si monde bi ne Ablaye Sow mooy sama nijaay rek dana la nawloo parce que yorul dara di ko denc pour ëllëg lu mu yor mbokk yi la bu jóg jotee mbokk yi la bu naqar amee mbokk yi la bu màggal jotee mbokk yi la. kon kooku doo ko am ba pare di dugg si benn permanence di ko jënd keneen koo xam ne da ngeen a dox daje. seex daa réer bu baax nag yaa mitu lu ko lool nag mbokk yi di ko mitu lu lool mu naqale yi nax boo xam ne piège la parce que xam-xamam la naxekat tool gi dina rafet kàddu ya dina rafet mais finition ba day ñaaw mu ñëw dajale xale yi defal leen piège. indil leen ceeb boo xam ne Ablaye Sow ay toni toni to ay kari camion la fi daa gaare ba léegi loolu dañul te du si seetlu lenn lu dul jox ko ay xeetam ak dëkkandoom ak ñi mu yaroon dool ci koñ bi at ay wóllëre waajuram képp ko fi dëkk rek ba fa jidda yem Ablaye Sow mi ngi seq ak yow tranga te du politique kon kooku boo ñëwee si biir këram muy seesam nga indi fa loo xamante ni musu faa am il faut ñu critiquer loolu critiquer ko rek moo nu tax a jóg nag parce que sunu doom la moom tamit na bàyyi xel na ñun ay kilifaam lan ñoog waajuram ñoo bokk bàyyi gënunu waajuram waajuram gënunu te waajuram am na fu mu nu teg mu sàmm ay kàddoom xam li muy def famille bi yomb la tas te ka muy song du moroomam du moroomam ñun ñi sax du moroomam bay doon moroomam moom kon seex dafa war a sàmm li muy def alalu àddina dara jaru ko loo bari la bari la di nga romb loo moomul loo néew la néew la di nga romb kontane te moom jaar na si souffrir xam na am kon loolu kenn waratu koo yedd si loolu dajale ay maire yoo xam ne ay xale yu jigéen yoo xam ne xamuñu dara que si sa passe nga ne leen dama leen di defaral aide si say famille mais boo ñëwee ñi bokk yow ndey ak baay ñi bokk yow baay boo ñëwee tuddal leen loolu danañ la songu nit ko amul lu dul mais lam wax xale at bi mu génnee montage yi mu def ne waa kër Ablaye Sow ñoo ma woo pour ma defal leen ndimbal mais moom waa kër Ablaye Sow la parce que Asugay mi ko jur Asugay mi ko jur Moustapha mu jur Asugay at aju Nogay ñoo bokk ndey ak kon loolu moom xalaatam la bu ñaaw waru ko war a def xale bi ñu demee ba xam ne Cheikh Gadiaga dalee na a nax ñoom ñëpp a bippu kenn ku sa nekk la nga soloon nga solaat pour mën a gën a leeral ne Cheikh dalee na a nax ñëpp ngi fi toog fan ko doon defeek la tax mu def kook yëpp day niil sëriñ boobu nag bu dee wut yoon da nga koy liggéey gis nga nit bu fekkee da ngay bëgg liggéey bul dem si mbokki jàmbur da ngay fexe say mbokk ak say partenariat mais Ablaye Sow gox bi fi la yaroo fi la jàngee école fi leen juddoo fi leen màggee te amul dara lu ñaaw lu mu fi def loo xamante ni mënoon ko see topp di ko critiquer même bu yoroon benn benn dërëm sax dugg ci campagne Ablaye dana naan ak moom parce que mooy suñuy bët mooy suñuy tànk nit ki nag kenn du sool sa tool di déqi toolu jàmbur seex daa bàyyi toolam bi mu waroon a jëmbat di ko déqi dem di déqi beneen tool boo xam ne bu ëllëgee war mun na see am nax na sëriñ buub nag sëriñ buub nag may dégg man Ousmane Sow Cheikh Gadiaga sama jarbaat nax na la fi mu la dugal doo fa dugg fa mu dugg ne la lii laa fa am amu ko fi ay montage rek la la indil te bu xale yi jëlee parole di nga xam ne Cheikh Gadiaga daa dugg si biir mbokk mais dalaa nax ñun nag duñ si sor yi ñu ngi lay xaar ba bés ba jot di nga xam ndax ñun la wala du ñun wasalaam jërëjëf ñu ngi leen di ziar bu baax Alaaji Sow nekkal sa kanam rek toujours yaa ngi si kanam yow Alaaji Ablaay bul tiit dara barke Maam Borom Touba da ngay am jàmm saa su ne barke Xaadim Rasuul barke Sëñ Mbàkke Madina jàmm ngay bu dul ñun sax seen Touba da siy jàpp parce que jàmbaaru seen Touba nga jërëjëf Sow. asalaamaaleykum yéen mbokki looba yéen ñëpp maa leen nuyu seen tur ak seen sant sama kilifa yi ngeen baal ma maa leen di nuyu Serigne Mboup Bassirou Gadiaga dëkk pikin ginnaaw raay maay tontu Serigne Mboup ak Cheikh Gadiaga Cheikh Gadiaga moytul nga ñàngoor yi dem soo ko buggee fël la lay rey Ablaye du sa morom. sëriñ bu mi la yabal ñemewu ko su ko ñamewoon day xuus da koo fël sa Ablaye da koo fel na ko taxawal fële séntu ko feneen Ablaye da koo séntu feneen du mook moom Cheikh Gadiaga da nga war a moytu sa bopp tey boo waxoon lool ñii nga dajale fii ñuy say doom baay di say nawle war baaxul seex Gadiaga da nga war say bokk ndax tey jii ña nga dajale foofu boo leen waxoon damay ñëw ngir dal ci kaw Ablaye boobaa dañ lay duma ba nga daj am na loo xam ne du soo wane Serigne Mboup xamal mooy sa Cheikh Gadiaga war na la lekk sa alal xam la la ndaxee jigéen ñi ay ji boo xoolee film am yi ay sama ñoom maam day laa fa nekk ay sama xale yu ndaw mu naa leen dama leen ni lii dafa am loo xam ne rafetul nit day wax dëgg te yàlla tax xam loolu mooy dëgg gi bu ñemee wala moom mu ñeme bu mu doon doon da leen waroon annoncé ay góor ñi ngi fi ne leen damay ñëw jidda damay de politique sëriñ bopp ba xam dina dugg wala du dugg loolooy problème bi dafa ñemewul waaye bu jëlee ay maire ay xale na leen damay leen di defal aide loolu man sax bu ma woon ne dama lay defal la ma koy man lool tey suba laa ko yëg booy mataar moo toog ma dama Cheikh Gadiaga démb ñëw na far ñu informé du loolu nit nag da ngay am fulla sa bopp am fayda gis nga njariñ loo fekkee liggéey da nga koy ñàkk liggéey da nga koy ñàkk du question da ngay toog foofu di nax say say moroomi nawle ngeen bokk deret dafa loo xam ne dafa ñaaw Cheikh Gadiaga dafa am loo xam ne demal nga liggéey boo bëggee jariñu politique boobu nga séntu nag yaa ak Serigne doo leen ci am dara ndax fam la loo xam ne soo waxoon Serigne Boub damay dem fi Ablaye saw dëkk billaahi wal kitaab du la jox xaalisam am na loo xam ne nag ngoru ngoru Serigne Boub mayu ko moom mu lay jox xaalisam boobu ndax bi nga ko nax dina ko lijjante ak yow wasalaam. asalaamaaleykum mbooloo mi voilà voilà <laughs> voilà ku ci nekk ñu ngi lay nuy ci sa ci sa ak sa sant waaw ak dégloo tuuti ak dégloo tuuti ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant waaye man damay emprunté ligne bi nga xamante ni moom la bas emprunté parce que c'est une ligne politique dafay dugg pour politique boo ngeen koy tontu da koy tontu pour politique bàyyi raay raayel yi parce que dafa ñëw pour yàq kan lay yàqal Ablaye Sow lay yàqal te yéen ñëpp Ablaye Sow dina leen teraanga goo xam ne war ngeen ko mën a défendre défense boo xamante ni amul sikki sàkka tey bu ñu tegoon fii kees ni sëriñ Boub teg fii kees ni Ablaye Sow wala ñu teg fee kees ni Cheikh Gadiaga kees yee yëpp zéro point lay am kees gi mooy fees dell am naa métier damay jàngale yéen ñi fi toog ñëpp am ngeen métier waaye yéen ñi fi toog kan moom moo mën a wax métier Cheikh Gadiaga wax leen ma ko kenn mën ma wax métier Cheikh ga c'est un fin manipulateur day manipuler suba ngoon jël waali door ci Youssou Ndour jël euh, Cheikh Amar muy àndal door ci keneen ainsi de suite léegi nag xam naa ni foofa booy na mu ne naa béy beneen tool ban tool xaar ma dem comme gis naa diggante Ablaye Sow ak euh, Serigne Boub sëriñ Boub am na lu mu bëgg te yéenewul Ablaye Sow jàmm xaar mu jóg seexluwul ma dara loolu ku seexluwul moo koy def parce que bu xoolee li mbokka bokk ak Ablaye Sow lu bu li mu bokk ak ñiy toog tey kon loola war na koo daw war na koo moytu war na koo rus ñi nga xamante ne nag ñoom la ñu dékkoon micro ñuy wax man dama leen di pardonné dama leen di comprendre parce que kaay jël ndimbal ak jamono fi mu toll sa mbokk di la jox ndimbal danga nga naan kii de damaa yéene intention bu baax la ñëwee nga ñëw waxal ko kàddu yu rafet tatagal ko teeru ko kon yéen gàcce ngaalama la ngeen def noon ngeen war a def da ngeen a fonk mbokk loolu rek la mais nag ca biir ndekete ay war a nga man bi ma seetaanee tey vidéo bi la matin mais j'étais abattu damaa rus damaa tiit dama doon seetaan vidéo bi di wax di yuuxu mel ni koo xamante ne ni àndatuma ak sama sago len dafa ñaaw su may am je gagne ma vie dans la dignité su may ñàkk je perds dans la dignité wasalaam loolu laa amoon lu ma ciy wax Ablaye nag ñaar yàlla dénk ko kenn

auzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim waaw man la musa Sow Cheikh jar seex gajaga di sama jarbaat yaayam di sama rakk sama taaw bu jigéen yaayam laa ko tudde ñun ñëpp ñu bokk mbokk gi comme que ñi ma jiitu am na lu ñu jiital gis nga lii fi am nii bu fekkoon ne Cheikh Gadiaga keneen la ko siqal seqalu koog ablaay sequ koog mbokkam kon nii ñu taxawee nu ko ëpp noonu la ñuy taxawee nekk ci am di ko farle parce que moom daf ñoo bett daf ñoo bett lii mu def nii daf ñoo bett man ci suba laa ko yëg parce que dëkkewu ma nii ci suba gi laa ko yëg bi ma ko yëgee ci saase nii ma lii ma toll nii ma soloon nii nii laa génn nii laa meloon fañ ma fa ma ko yëgee ba ma ko seetaan mënatumaa dellu sama kër dama ne naa ñëw fii de naa ñëw fii directement te moom ci saase laa ko woo ci saase laa ko woo ne ko Cheikh lii nga def nan nga ko mëne nan nga ko mëne mu ne ma lan ma ne ko sa nijaay Ablaay léegi moo la dese moom ngay wax lu ñaaw di ko xarab ma ne ko yow booy wut booy wut dara mun ngaa wut dara te bañ a ba bañ a xas nit kii sa nijaay sa kilifa la mooy sunu kilifa ñun ñëpp di sa kilifa yaay ah nan nga mun a gël teggi eh, wax ju ñaaw jii di ko teg ci kawam mu ne ma ah tudd ma turam ma ne ko tudd nga turam bi ma ko joxee firnde ne ko tudd nga turam ba wax ne su fekkoon ne Ablaye taxaw na na mu war a taxawee ci njaboot gi du ñu woo Serigne Mboup mu ñëw di leen dimbale ma ne ko loolu ñaaw na ma ne ko loolu ñaaw na lool te lu mu bon bon yow munoon ngaa wax sax wax munoon ngaa junj sax peut-être comme dugg nga ci affaire politique yëgoo ko te man lii bu ma ko yëgoon ma ne ko am na ci yoo xamee da nga ci daan dugg. wala bala ngaa def dara ma yëg ko parce que booba man maa ko dese maa ko dese comme kilifa parce que Ablaye ci boppam dafa ne ma xale yi ñi ci dëng njaboot gi la ñi ci jubadiit ci njaboot gi la moom am na nu mu doon doxale mu ne ma comme que yow mun ngaa wax ak moom jéem koo récupérer jëru koo récupérer xam nga war xam ne kon Ablaye amoon nay intention yu baax ci moom nee naa ko sax ci màggal gi yow xanaa yëgoog sa yaay yëgoo sa yaay mu ne maa ci lan ma ne ko sa yaay ñëw na ci màggal gi seet ci sa nijaay Ablaay ma ne ko xam nga sa yaay yëgu la mu ne ma mu ne ma nijaay mbokk gi moom mbokk la sama yaay ak Ablaay seen mbokk démb la waaye man dafa am lu may wut moo tax ma wut fii ma ne ko non ni nga ko dugalee moo ñaaw moo ñaaw parce que lii di nga ci wéet parce que say mbokk kenn àndu ci kenn àndu ci man am na ci yoo xamee ne da nga daan wax ak man ma xalaatal la wala ma déggal la lenn ma déggal la lenn lu jàmp loo xam ne lii su ma taxawul jonn di nga am di am jafe-jafe yu rëy rëy mu may dégg mu may dégg di nga am jafe yu rëy ci saase la may lay lay ñëw ci man wala mu woo ma téléphone ma wax ko naka lay def ba mucc noonu laa doon def moom man maa ngi doon def tout pour récupérer ko mais tey jii moom bett na ma lool lool lool lool bett na ma li mu def dafa ñaaw dafa ñaaw lool dafa ñaaw boo gisee lii ni mu demee nii ñu wootewaat pour teggi tuuma du ñu bàyyi sax mu yàgg parce que dafa rafetul te dadul dëgg dadul dëgg munoon naa wute mbooloo neneen waaye di ko di ko fomante di ko fomante di naxe loolu day tax sax mu génn ci xolu askan bi te loolu baaxul ci moom loolu baaxul ci moom ah dafa war a wax dafa war a jëfe loo xam ne lii ah ñi ma jiitu ñoom Ousmane ak ñooñu ñoom waxa yaayam wax nañ ci moom lu wax nañ ci moom loo xam ne lii soo ko dégloo di nga xam ne yëgoowul ak moom moom xamoon na ne li mu def moom acte première bi la soxla maanaam filmer leen ñuy jël xaalis di jël ceeb di joxe seen tur di ko ñaanal loolu la leen naxe xam nga say mbokk aussi bu ñu ñëwee ci moom ay nit bu ñëwee ci samay mbokk ne bala ngaa bala ngaa bay ci àll jëm ci àll ba nga commencé ko sa biir kër loolu la def ñii nag ñii nag daal di koy ubbil seen xol wax ci moom tagg ko tagg ko mag ma jiitu da koo tagg la mu xam ci moom la wax te loolu mooy dëgg waaye moom mii mu doxale moom moo ni mel ci sunu askan moom moo ni mel ci sunu askan te lii ab dërëm jaru ko ab dërëm jaru ko ab dërëm jaru ko man ci so ci saa laa ko wax ak moom mu ne ma nijaay damay politique ma ne ko booy politique am na noo ko war a doxale mu ne ma Barth Barthélemy Diaz a ngi nii ak Jean Paul Diaz kii mooy doomu kii kiyee ko jur te bokkuñu fu ñu lang fokkuñu ku ñu kii ma ne ko loolu du raison maa moom ci suba gi avant may ñëw fii wax naa ci ak moom mu ne ma ma ne ko loolu du raison loolu du raison lii daal di nga ci wéet di nga ci wet parce que même man boo boo man munoon nga maa wax man musumaa yëg ne yow da ngay campagnal sëriñ boobu am na ci lu bari loo xam ne bala mu koo def man daf ma koy wax. ma wax ko ci sama xalaat su ma déggee aussi muy def loo xam ne lii mbokk yi ku ko dégg di nga ci am lu naqari ah dama koy teel a woo recadré ko parce que au moins moom bu ma ko wooyee dina ma wuyu moom fu ma ko wooyee rek mu wuyu ma parce que xam na ne intérêt rek ci laay dox parce que man beddiwu ko te loolu yëpp ci ndigalu Ablaye laa ko kee dafa ne ma ci njaboot gi xale yi ñëpp njaboot lañu ñëpp sama njaboot lañu waaye ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi jub. macha allah pratiquement ñëpp la waaye moom mi ciy def nii man jéem naa def tout pour boolewaat jubalewaat ko ak nijaayam parce que loolu mooy intérêt te aussi loolu mooy intérêt Ablaye Ablaye bu sañoon du am ak kenn xaar ma yàlla gis nga lii suñ ci toppoon Ablaye duñ ko def waaye nit ñi ñoo fippu ne comme que dañ ñii ne comme que dañ ñoo nax wala aussi comme que ñoo xamee dañ ñuy abusé ah teggi tuuma rek. mooy war ci saase mais su fekkoon ne Ablaye lañ dégg Ablaye dépassé na foofu Ablaye bi muy def fii muy wax fii waxuma rek Ablaye waxuma rek njab ñun ñii concession yii yëpp ñoo bokk mag ñi ñoo bokk ay ndey ak baay nañ ñu toxalee Dakar noonu la ñuy ñëwaat dëkkaat fii kër yi benn la gis nga fa mu defe woon léegi lee ah su ñu jógee fii noonu lañ fay duggee kenn du ne déedéet dégg nga ci Ablaye ba mu naree ba mu dalee def booba moom kenn xamul ndax dina judd wala dina jub walla déet dina jub wala déet Ablaye dépassé na foofu dépassé na foofu yàlla xam na ko segam ñi ñu dëkkal ñi ñu dëkkal ñuy ay kii ñuy ay ay dëkkandoo bokkuñu sax benn xeet bu ñu nekk ñoom ci maanaam ci ay jëfu Ablaye yàgg nañoo toog ba ne man am na ci ñoo xam ne woo nañ ma ne man naa leen bàyyi xel parce que ñoom ñoo ñu gën a féete mag tuuti waaye nee nañu dund am na dee am na waaye ni ñu gisee ablaay di doxale ci biir njaboot gi ñoom ñu ngi ñuy ñaan bu ñu fi jógee bu fekkee ne ñoom ñoo ñu njëkk jóge fii ci àddina dem nañ leen yóbbu ñun fa ñuy nekk di Daaru Salaam yàlla xam na ko te ñooñu bokkuñu dara dëkkandoo bu yàgg rek. ñu gis Ablaye li muy def ba pare yéene ko ñëpp te li muy def ca kër yëpp la koy def amul amul heure amul dara moo tax ma ne Ablaye dépassé na fii bu ñu ko toppoon lii du fi am suñu ko toppoon moom lii du am waaye nag aussi comme que moom mooy sunu kilifa moo ñu yilif moo yilif yaayam suñu déggee lu lu lu lu lu lu ñu naqari ci sunu kilifa il faut ñu jóg fajal ko su fekkee ne nangu nañu kilifteef gi ah doo dem di ko nettil naan diw lii la def yow kay jógal faj loolu moo waral lii mais bu doon Ablaye rek ablaay dépassé na foofu te sëriñ bu bi mu ko seqal moom xam na kan mooy Ablaye sëriñ bu bi ko seqal xam na kan mooy Ablaye te gis nga lii lii lii lii mu cautionné Cheikh pour Cheikh pour Cheikh ñëw def ko fii ci waa ci waa kër Ablaye mu ne. Serigne Mbuub moo gën a xam ne lii pertement la ci moom parce que xam na ko xam na Ablaye xam na ay mbokkam xam na ñun suñu solidarité xam na ni ñu mel ni ñu solidaire waaw moo tax def na erreur bu mag a mag a mag a mag def na erreur bu mag a mag a mag bi mu waxee loolu daal nee naa ko li nga def sa kilifa la rafetlu ma ko mu ne ma nijaay yàlla xam ne li lii la ma wax comme que lii naqari na la dootuma ko def ma ne ko booy def sa kii nag booy def booy continuer sa campagne fexeel ba bul tudd ab laay bu ko wax lu ñaaw mu ne ma billaahi nijaay comme que ñaan nga ma ko dootuma ko def yàlla xam na ko fii lañu lii lañu ñu ko maa moom ci laa jóge foofu ñëw fii waa di ñaan yàlla nag xale la dafa réer dafa réer li mu def man naqari na ma lool naqari na ma lool waaye moom xam na ma su ma ko woon léegi dina ma wuyu dinaa defaat lu ma mën lii moom dina ci génn parce du ko yóbbu fenn te ka mu àndali du dem fenn parce que aussi euh, na yàlla fii ak suba suba ginnaaw suba dinañ fekk bu soobee yàlla mais bu yàlla defee li mais moom moom mooy am gàcce day wéet moom rek moom day wéet sonol na ay mbokkam sonol na ay ay ay ay ay waajuram waaw ci bànneexu boppam rek ci bànneexu boppam moom daal li mu ci am nii ci saa si li muy encaissé loolu la toppatoo la res yoonam nekku ci àddina nag du noonu man du tax ma bàyyi ko waaw du tax ma bàyyi ko parce que nee na man la def kilifa moom moo ma ko wax su ma ko waxuloon it du ma ko wax du ma ko wax waaw te moom xam na man xam na yàlla xam na moom xam na man xam naa yàlla xam na yàlla na ko yàlla gindi ba mu xam ne lii du nii ba mu am sax ngoru ñëw taxawaat wax ne juum naa mu taxawaat wax ne juum naa ñu jéggal ko bu ko defee mbokk gi mel na mu meloon asalaamaaleykum wa rahmatullah fi nekk kilifa kër gi di maamu xale yi ah di bàyyi ñi fi wax ñëpp may seen pap Cheikh Gadiaga nag sama sët la maa jur ndeem waaye moom dañ ko yebal ki ko yebal mooy sëriñ buub te sëriñ buub li nekk ci xolam du deñ mukk digganteem ak Ablaay ndax lii Cheikh def pour ma résumer ko euh, bi ko sama doom ji woyee ci suba wax ak moom am na leneen loo loo tëb nee na dafa am lu ma bëgg mm-hmm. dafa am lu ma bëgg chambre de commerce ndax dama fa bëgg a nekk conseiller alors te conseil boobu euh, sëriñ boobu mu nga mu créé na tendance ci biir wala boog mu ngi tenté benn tendance ci biir euh, chambre de commerce de Dakar pour ñu dal ci kaw Ablaye mu jiital ci nag mbokk Ablaye Cheikh ma waroon bañ loolu loolu loolu dafa ñaaw rafetul tey rafetul ëllëg te famille bi yëpp benn la waaye nag sëriñ na xam ni Ablaye du du jidde rek de Sénégal yëpp la fu lawbe nekk ci senegal ñëpp ñu ngi ci gannaaw Ablaye pour mu xam loolu du neexle fenn fenn fenn ci senegal loolu laa bëgg sëriñ bu xam ko ak ku mu euh, kii nag def na rolam Cheikh pour reesal xaalisam wane na image am euh, image yi joxe naa ceeb joxe naa 5000 pour pour. pour lekk xaalisam kooku moom vraiment moom loolu mooy loolu mooy point fort waaye nag sëriñ na xam boppam xam ni fii mënu fi am dara li sama doom yi wax nag loolu rek mooy mooy wax yi dëgg waroon nañu ñi ñu fi nax ñëpp ñi ngi fi mm. waroon nañu jël ku nekk ñu jël ah, parole kii jarbaatu Ablaay la moo ko yaay mu bokk ndeeg baay ci ñu ñu nax la bokk soo ba tey mi ngi jooy moom xamuloon xamuloon sax lu xew kon donc dama bëgg xaadim ñu maasaale ko ak ñépp rek xëy na bëgg ngaa wax waaye nag bàyyil ñu waxal la rek sa xol tàng na wala ñaari minute rek baax ku fu nekk maa lay maa ngi lay nuyu sa tur sa sant asa <coughs> asalaamaaleykum ku ci nekk maa lay nuru sa tur ak sa sant di jégalu bu wér sama nijaay yi nga xam ñoo fi nekk ak sama maam yi man Xaadim Sow ma aw ma kenn ku dul Abdoulaye Sow man nit bu ñëwee sama nam Abdoulaye Sow laay def nangam nangam avancé man ku ne xam na man man du ma foo mais waa ma maanaam ba may laaj man fa ma waxee ak moom fu mu yóbbu wax ji bokkul mais man ku ne xam na man sama lépp Abdoulaye la dem naa bu mujj sax man yoruma whatsapp dem naa bu ñu ne ma non waa ji sax nee na ki mooy xaalim sax ma jox ak liggéeyul man maa ngi sant yàlla baax di tedd si turu Abdoulaye Sow paaka ba laa nekk turu Abdoulaye Sow laay dund di si añ di si di si ndékki comme man am ma xaar ma yàlla ak laay saw Cheikh Gadiaga nag li ko ñor mooy mu tax suñu mbokk ji non mënu ko tas day nag boobu yàqati mbokk nag moom yàgg-yàgg place am fenn dong la muy sa kaso ba te lii mu def nii man xaalim Sow man laa wax man en personne ak sama xol barke Seydina Muhammad dama koy layoo ak moom balaa ñuy génn àdduna nag laa lay wax de waxuma ay après de dama koy layoo ak moom tooñ nañu nag ba fu tooñ yem parce que ba muy wax dañoo jàpp ne kii kat yaayam suñu tànta la ñu wax suñu wax ñu rafet ndekete moom bu demee leneen lay réagiré ñu bokk teg nii mais man ñi ma ñi ma naan ñëpp xam nañ ne xaadim mi du foo si sama kër ni jaay jëlee dama faa yaatu dama faa yaatu yaatu fa yaatu boo xam ne ñëpp ma yaatal kon man aw ma intérêt di jël sama nijaay di ko am lenn ma teg man ku ma xam xam ne carrément ku wax sama nijaay lenn ma déggaale ko ak yow muy Jean muy Paul ñii nekk ñëpp xam nañ ko maa ngi sant maa ngi gërëm li si des nag jeexal na sama xol waaye nag dina xam ne man la ak moom barke Seydina Mouhamed depuis minuit démb démb 23 heures et quelque ba fi waxee yow salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp mais Cheikh Gadiaga nag dafa laal laalaake quoi parce que nit burul dara sax da ngay am respect nit da ngay nit burul dara sax da ngay am respect doomu aadama yi quoi susu maag koo xamante ne ak sa yaay ñoo bokk benn papa buleen leen jur burul dara sax nga respecté nit ñi Ablaye Sow du sa morom tey du sa morom suba moom ak Serigne Mbuub la woon. arène lañ daje Ablaye Sow yëkkati ko ba ci kaw dóor ci suuf yaa dégg kon yow nekkul yow ak Ablaye saw quoi li la may sens nag danga koo xam xam nga li la may sens sa ndey ak deret moo la may sens sinoo dañ lay fekk si ba fa nga nekk. ñun nag nawloo nawloo ma sàcc nawloo ma kuy jël alalu jàmbur. nawloo ma nit buy baagante 100 mètres ak seen kër nawloo ma kooku xam sa bopp nag ci jaamu yàlla la bokk quoi du ragal nag setal sa der la. lu ma siy wax sama tàng mënu assalaamu aleykum assalaamu aleykum onse billahi ah, waaye may leen tuuti ñu jàllale message yi auzu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim laa xawla wala xawta illa billahi asim yàlla ñu yàlla musal ci saytaane yaa ni nuyu mbokk yi fi teew yëpp waaw man de li version yi sama grand yi yëpp wax d'accord dama ciy coof tuuti rek gosse bi nag moom duma ko tudd c'est trop man ki ko ki ko yónni lay moom moom moom laa bëgg a attaqué muy ndax Serigne yàgg naa yónnee ay doomu aadama làqatu ci ginnaawam mu ne ci kaw Ablaye Sow président Abdoulaye Sow nag yàgg naa ko wax pour attaquer ji sëriñ bu par man jàkkaarloo moom ne ma doon doon leen noonu waaye ko tey nag sëriñ mi ngi doog a laal laalaale sëriñ boobu na gëm yàlla sëriñ boobu jàng alxuraan dem kii mu jàng alxuraan fan xanaa da ko seulement xanaa xamul li yàlla wax ci alxuraan nit du soxor nit du iñaan nit du complot ku jàng alxuraan du ku jàng alxuraan du complot du soxor du iñaan kon moom ba la ko bàyyam yóbbu ci kooki googu mu jàng ko la ne kon jëriñu ko dara sëriñ alalam ci li mu koy doyee mooy xeexee ak pal wala affaire yi maa ngi ñaan nag réew mi ak autorité réew mi sëriñ boobu kaw la dëkk dëkkul ndakaaru nañu bàyyi suñu ndakaaru na bàyyi ndakaaru gi muy laxatoo jël ay di ko puus bu dee Ablaye mi Ablaye du moromam Ablaye raw na ko Ablaye boo Ablaye di liggéey bay liggéeyal askanam booba sëriñ ma ngi kok kokk gee toog ci daara yi di jàng na bàyyi Ablaye Ablaye da koo xeeb sëriñ mii bu fekkoon Ablaye déggaloon nañu kon sëriñ ñun jógoon nañu attaque ko bu yàgg waaye fu ñu waxee Ablaye Ablaye na bàyyi leen ko xale la du moromam kon nag yaa may dégg fii muy dem di làqatoo affaire yooyu Pikine gii muy woote moom bis bu fi tegee tànkam a ku mën fi yómmi billaahi ay tànkam du ko delloo kon nag moom na gëm yàlla te bàyyi yi muy def nii ak complot yi ak wur yi def yëpp Ablaye raw na ko Ablaye raw na ko diggante asamaan Ablaye Sow dafa liggéeyal ay bokkam liggéeyal yàlla liggéeyal Serigne Touba liggéeyal aw askanam yëpp ci lépp defal na ko askanam Ablaye war defal askanam def na ko ba fii ko wër ci environnement jàkkay ana la Serigne ana jàkk jum tabax Serigne ana lu mu defal naa nga sa àll rek nga ko yore sama waay di ko di ko ay campagne di dóor ci kaw nit ñi Ablaye du moromam du mappandoom Ablaye ci boppam laa wax ni sama waaye li Ablaye di nga xamante ni moom la taxawal du mësar du moom moom Serigne du mësar euh, seen Ablaye pëndub Ablaye Serigne mënu koo seen Serigne boobu yamal nga xam sa lekk régleel sa bopp carrément li nga bëgg ci Ablaye Sow Ablaye Sow jant la Ablaye Sow foo mën di nekk Serigne dina la tiim jërëjëf wa salaam mi wax lu solo ndax du am loo du xaar nga xaaroo eh, ba asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziare te di leen balwaq di jégglu ci li ñu def nii ndax xam nañ ne ñun li ñu def ñoom sunu waajur Pa Ablaye bëggut lii. ndax moom ku ko tooñ ñu baal la du jéggale ndax moom dafa am lu muy dund mooy xel irqal jami xel waraay yaa xaadeeraal yu tooñ di lay jéggal moom du fayantoo wallaay lazim li fi sama mag yi wax yëpp wax nañ dëgg waaye dañoo rafetal rek ndax ki nga xam ne moom moo ci jëf-jëf ji def loo xam ne lu mu law law teqal ak loo xam ne lu mu law law teqal la mënuñu koo def dara ndax dafa fokk ci ñun nit nag mënoo bokk moo ba pare di ko def safaan ba moo tax ñu rafet nii waaye bu fekkoon keneen la kuréel nii kon dañ ko tontoo neneen ndax nit mënut a tontu sa mbokk di ko wax safaan ndax jànguluñ ñu loolu te xam nañ bu ñu waxee lee lu bokkut ak loolu bis bu ko Pa Ablaye dégg dana am lu ko naqari ci ñun ndax ñun nim ñu yore mooy yar ak teggin xam ne am na wax yoo xam ne war nañ ko wax am na jëf boo xam ne war nañ ko jëf waaye nañu seede ne wallaahi lazim xam naa maa ngi koy jéggulu billaahi wallaahi Pa Ablaye li muy def te yàlla tax ci mbokk kenn ku ma xam koy def ci mbokk amul man boole naa ko nit koo xam ne moom xamul ni maa ko boole moom ay millions la ko jox di ko faj te yàlla tax te kooku bi ma ko nee demal def na instant ma ne ko demal woo na ba ma ñëw téléphone mi ne ma Ousmane mi ne mi ne ma li may def te yàlla tax bugguma nit ñi yëg ko moom di woote ay vidéo wala mu dem ay grand théâtre wala mu too ay musique wala muy topp ay jigéen moom kii kilifa la la mu war a nekk ña ca. ka nga xam ne day topp ay jigéen wala nga xam ne day topp ay musique moom Pa Ablaye bëggoon def dara kon day grand théâtre la wat waaye kenn mësu koo dégg leen lu Serigne Touba kon loolu mu nekk na ñun ci la ñu nàmpatal ba tax ñu am ay yar ki teggin xam ne duñ tontu Serigne kenn nag day sunu rakk rus nañ ko wax dara ndax lañ bokk ak moom moo tax kon nañ wér ne sunu bàjjen yi nekk sunu ginnaaw ak sunu baay yi ak sunu mag yi ak sunu jarabaat yi xam nañ ne Pa Ablaye li muy dund xam nañ ko li muy def xam nañ ko li muy dimbali nit ñi xam nañ ko du dimbali di wax di dimbali wala muy taal ay vision ak kii lii mu def nii am na lu muy dimbali loo xam ne kenn ku ci dana ko jox tamit bu la ko jox guddi lay doon dañ lay fëgg ne la koŋ jox la sa enveloppe loolu buñ ko def junniy lawbe yoo xam ne ñu ngi ci Sénégal kenn ku ne dama def ci alalam te mu mën koo seede kon paa Pa laay du moroom moom du seen moroom du seen moroom du seen moroom kon dañ ko bàyyi nag ku ko baytuwul nag dana faqatal daaneel la jëm sa kaw ku moytuwul sa ginnaaw ku ko moytuwul nag daneen jël sa kaw daane la loolu moom bu yow ñëpp xam ko euh, wax Serigne Mboup dinaa wax Cheikh parce que Cheikh moom na xam ne mbokk kenn mënu koo jënd. ndax Axlu Mbàkke ñin fi yaakaar dafa juum rek moom dafa juum rek te damaa jàppande rek dafa juum parce que koo fi gis ma nga jàpp mbokkam kon man damay jàpp ne rek dafa juum Serigne Mbuub nag comme ni ko Bas waxee rek moom na politique yi te bàyyi Ablaye Ablaye duggul ci ay mbokkam te bu fekkee ne dafa nar leen wala mu xalaat leneen Ablaye ko mën fuuf ndax Ablaye ko mbo ëpp mbokk ci Sénégal région Sénégal yi nekk fii yëpp ci Sénégal foo fi dem mbokku Ablaye la lawbe boo fi gis rek lawbe yépp ay mbokkam la sëriñ Mbuub te ŋaaŋal Ablaye Sow wàcc nga dem liggéeyi sa liggéey bàyyi Ablaye mu liggéey liggéeyam wasalaam. waaw salaamaaleykum yéen mbooloo maa ngi leen di nuyu sama tur ak sama sant di wax ci jëmmi Ablaye Cheikh Cheikh Gadiaga nag sama doom la dafa ñëw daf maa nax man lii ma soloon bi may wax moom laa soloon man li may dépassé ëpp na junni man li may dépassé ëpp na junni te man man benn kopp ndox laa yor tool bi ma am laa koy roosee man xaw ma sëriñ buub man damay liggéey jariñu mais xaw ma sëriñ buub Cheikh Gadiaga demal nga dem liggéeyi wala nga jël ab Ablaye nga ñëw nga def ko kilifa man du ma raay de li ñuy di raay nii du ma raay te maa yow bu ñu jàkkaarloo dama lay nokk parce que Nabil Moustapha bu ma jàkkaarloo na yow dama lay nokk ndax danga maa tooñ danga maa tooñ li may wax ni dama ko sama biir xol laa ko tibbee ay mag a ngi toog nag damay wax lu leer nañ naññ ndax man duma ma tricher danga maa tooñ ba sa kanamu yàlla ndax danga maa def looloo xam ne neexu ma danga ne danga am ay partenaire te say ñun say mbokk lañu say yaay lañu mag say yaay bokk benn baay buñ jur alaaji yoro la ak Moustapha nii laa ko waxee nga may jël te damaa yaakaar na deret moo tax nga ñëw mais danga ñoo dalal ndigg sërëx laxoo xaw ma dangaa gas sa kàmb ba mu xóot nga teg si carton def si suuf suruxal ñu si biir mais nag lu dul dëgg du yàgg ba nga defee la ngay def xam ne yàlla suñu borom bi dina la weer ndax gënooñu gënuñu la lépp si dëgg lañ koy def baal Ablaye du sa morom gis nga Ablaye kilifay diine yi dañ koo ñaanal ndeyam da koo ñaanal baayam da koo ñaanal ay magam ñaanal ko Ablaye su màggalug Touba jotee convoi lay def doomu aadama yëpp monde entier di ko gis booy régleel man mii di jigéen rek maay sa ndey sa ndey laa seexul xaddim xam ne bu ñu jàkkaarloo woon dama lay ñuus billaahi wallaahi taalaahi dama koy wax politique la ñu nekk politique bàyyiwul dara politique la ñu nekk bàyyiwul dara suñu dajale man noq la billaahi wallaahi wasalaam ma dem asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam ñun démb liñ ñu fa woowe mooy cas social li nogoy miy wax junni dépassé luñu man xam ku kuy sama cas social sama jëkkër bu ma ko ci tegee nag teg ci magam ji ndax ku ni ko olof di waxee ku amul kilifa doo am wéeruwaay yaa ngi dégg ku amul kilifa doo am wéeruwaay bañ na ko ba démb ba mu bërki démb ba mu demee Touba dañuy Ablaye Nogoy ñun li nga ñu nàmpat moom la ñu xam ci la ñu màgg moom la ñuy dox ci liggéey nga ñu nàmpat ci liggéey la ñu nàmp ci liggéey la ñu xam ci liggéey la ñu dox yaa ngi dégg mënu maa wax nag ci rajo waaye def nañu lu ñu metti junneem beeg saako ceebam beeg bu ko neexee mu ñëw jël si ko wasalaam salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp Cheikh Gadiaga nag ñoo bokk baay ñun li kii wax rek loolu la ñuy wax deret moo ñu yëngal ndax ñoo bokk baay papaam ak sam ñoo bokk ndey ak baay kon Cheikh Gadiaga bu ma woowee ne damaa bëgg social foofu kon ñun dañ koy jàppale ndax daf ñoo nax ñun ñëpp la nax xam ndax ñun du ñu fekk Pa Ablaye fu ñu koy defee dara ñun ñu ciy jiitu muy suñu kilifa di suñu lépp sam papa dëddu barki dem bàyyi ñoo moom ñu taxaw taxawaay bu rafet muy suñu kilifa di suñu lépp li ñu wax rek man mënu maax ci rajo mënu maax ci télé mais Cheikh moom duñ ko baal lii mu ñu def barki sëñ Fallou Mbacke kenn du ko ko baal duñ ko ko baal billaahi duñ ko baal ndax daf ñoo daf ñoo tëraxal ko ko baal billaahi duñ ko ko baal man mënu ma wax eh? mais wax wax nga salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñaanal jàmm ñun ñëpp yal nañu yàlla may jàmm mais Ablaye Sow fii la juddoo fii la màgge fii la màgge fii la amee soxna demul Gabon demul Abidjan jaaru di naan sàngara toxu cigarette ñëpp la bëgg kon nag fu mu woote ñu wuyu si ko. ku ñu dëkk bëgg ñoo jënd ñun du ñu jar ñun kenn du ñu jënd ñun kenn du ñu man la Kumba Daat doomu Umar Daat kon ñun kenn du ñu jënd Ablaye Sow lu baax rek lay def ñun ñëpp nañ ko jàppale mu dem mu defal lu ñuy baax jiitu ñu topp ci ginnaawam yal na ko yàlla defal jàmm yal na ko yàlla defal jàmm du fàtte démb nag te ku fàttewul démb nit ku baax nga nit ku baax la ku yaru la. ku baax la ku yaru la wante ngeen ku ñu woo ab lay ñu woo ni woo ngeen gor woo jàmbar woo bete bete ni woo ku ndeyam gërëm ak fameem bismillah waaw bisimilah rahmaani rahim bisimilah ñu dégloo ñu dégloo man li may wax bariwul li may wax bariwul parce que man doomam laa te ñi fi jot a wax yëpp ay mbokk lan te buñ nee diw baax na mbokk yaa ko wax waaye suñu mbokk yi kase waxee mën na ne dañoo révolté wu te Cheikh dafa ñëw demb sos wax loo xam ne du dëgg ne Ablaye Sow dimbaliwul ay mbokkam nax leen ci nax boo xam ne tegu ko fenn nax nax tamit ki mu àndal Serigne Mbuub comme ni ko kii waxee rek sëriñ Mbuub moom ñun duñu wax ay waxam ndax moom mook ablaay Sow la woon Ablaye Sow def ko la mu koy def mu ciy toppaat ba léegi te bu ñëwaatee dañ koy defaat nañ ko defoon wala nu ko raw kon seex bi mu jël nag def ko pion pion boobu seex moom moo xamut mu ñëw léegi comme nax bi mu ñu nax wax fi ay fen yoo xamante ni li mu wax lépp ay fen la ñun bu ñu waxee ñun kese mbokki Ablaye du doy léegi dañuy dugal ñi nga xamante ni ñoom ñooy dëkkandoo yi fii fii Ablaye léegi ñuy waxaat dëkkandoo yi la ñuy dugal ñooñu bu ñu seedee di xam ni kon ñun li ñuy wax dëgg la ci ñun te li li ñu waxal Ablaye dëgg la parce que bu mbokk yi kese waxee du doy dañ naan deret ñu yëngal ñu wax léegi dañuy woo maire Omar maire maire kii maire ñëwal nga wax waaw dugal ñu wax mbokk ñu wax dëkkandoo yi ñoom ñooy wax fi mu nekk nii. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki deret yi mbokki dëkkandoo yi. mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziar te di leen jox loxoy xol te di ñaan seen bëgg yàlla na ko yàlla def ci barke Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul ndax jataay bi day jataayu mbokk la jataayu kóllëre la jataayu dëkkandoo la waaye mu am ñaar yu ma ci jàngat nag bi ci jiitu mooy jataayu gàcce la ci sabab bi ndax kim mbaral mbir mi du lii mooy méritam pour ñu war ko ko def war a ñu war ko ko wax rawatina ki nga xamante ni bi moo nekk ci biir mbokk gi te xam na ni lii mu def ak mbokk dong mu tax mu sañ ko ndax fit mënu ko ndax ku xam ablaay xam mbokki ablaay xam ni ñi mel ci ñoom ak Ablaye li mu def ci famille bi nga xam ne tey bu santom bantam fii ni képp ku mas a bokk sama askan te mosoo lekk sama wërsëg na ko laal bant ba kenn du ko laal kon kii dafa jaar ci ñàll waaye nag day mbokk mbokk nag bu fekkee ni dafa jaar ci ñal da nga koy ñaanal yàlla dëpp ko ndax mu bañ a yegg ndax ñàllkat boo ca jaaree ba yegg fa ngay jëm du baax te Ablaye day amul kenn ku ko mës a song am ndam mës a am kon ñoo ngi lay ñaanal rak yàlla na nga dëpp ndax ñal wi nga jaar de yéene wuñ la ko ndax ku xam sa waajur day xam ne nit ku baax la man day dama laa yërëm te di la ñaanal tey ñaan conseil bi ma lay ko jox bi ma lay jox yàlla na nga ko def ndax sa waajur dey taxawaayam ci famille bi rafet na waaye nag ñal wi day dadul àgg te ñun ñu yéene la nga àgg ki nga tooñ nag day baale ndax ku xam Ablaye xam ne mës sa fayu bu mës it ndax xam nga yàlla ku muy xeexal doo xuloo doo mës a dégg kàddoom nii ko kilifa gi baax waxee sànq lii ñuy def day neexu ko ñun de ay dëkkandoo lañu waaye def ñoo yar ñu am lu bari lu ñu copier ci moom muy yar ak teggin ak nangoo jaamu yàlla doon taalibe Serigne tubaab bu dëggal nag sax ci nampatal ci ak njabootam ba ñun ñi ci dëkkandoo it mu maasaale ni ci ba ñu am luñ ci for mën koo jariñoo kon suñu jarbaat ñoo ngi lay ñaanal yàlla na nga dëpp ndax nga dajeeg lu baax ndax kii nga song kat doomu aadama mosu koo song am ndam ndax du tooñ kenn ndax yàllaa koy xeexal asalaamaaleykum wa rahmatullah maa dëkk ak ñoom Ibou saw ci kër gu ndaw gi Ablaye xam na ma maa ko yar maa ngi xam na ma maa ko yar maa ngi yaayam la woon fii ci kër gi sama taaw ci kër gi lañ ko ngénte kon nag mën naa cee wax lu bari ndax Ablaye saw du mën a bon ay yaayam danoo baax ay maamam danoo baax ba ci Ibou saw mii kenn gënu ko enveloppe bu Ablaye Nogay mii amul ku ko araamal ci dëkk bi timis lay jóg bu wàccee Ibou saw bu wàccee ba lay noppalu du toog sax dama naan waa Ibou mi du lu pare doog a jóg day jóg kër gu ne mu dugg fa jox la enveloppe ni la sama nijaay Ablaye saw moo la ko may ana ku ko mën a wedd ci koñ bi ñëpp di xale di mag di ndaw te Ibou saw yàqu ko ni ko ko Ablaye joxe noonu la koy joxee ñëpp booleeg te politigul du wax Ablaye boo ko gisee ba ko nuy sax ma ngay daw ba ñam rek ngay séen mu ne nii di daw kon ko kenn gënu ko kon Ablaye yaayam a liggéey li affaire bi ndey ci la du daanu mukk ca kanam rekk ca kanam booye boo mu xam ni bu tëddee na nelaw Ablaye mag bëgg na ko ndaw bëgg na ko ñépp a ko bëgg kon ma ni ko Ablaye yaayam a liggéey affaire bi ndey ci la bu mu daanu bu mu tiit mukk bu mu ragal auzu billahi min asheytaani rajim alhamdulilahi alamin allahuma salli ala seydina wa mawlana muhammadin wa salim jërëjëfe maam bamba jaaraam maam seera fall ñoo ngi sant yàlla suñu borom macha di di wax ne ablaay ablaay ay gor nga àndal ay julit nga àndal law ba sénégal yi nañ ges lawbe yi te roy ñoom lawbe ñooy ay gor ñooy ay julit lawbe ay gor lañ ay julit lañ te ciment lañ buñ tàppee duñu duñu bàyyi bu la yàlla boole nit muy seen mbokku deret dangay ngay ak moom ci ngor ak jullit may wax nag sëriñ mbuub cheikh moomu bu lay dugalati na la dugal ci ñoo xamante ne ay baadoola lañ mais bu la dugalee ci ay gor dangay ngay perte fi ay goro fi nekk ay jullit fa nekk ay taalibe suñu taa ñoo fi nekk te gëmuñu kenn ku lu sëñ Tuubaa maam Seera Faal Ablaay def ci àdduna bi yëpp teraanga waxuma la mbokk seen i mbokk mais ku xam Ablaay rek teraanga nga ko xamee ak jàmm ak sutura te boolewu koog wax Ablaay gor la jullit la Ablaye nag ñi ko xam te yàlla boole ko ak ñoom jàpp nañ ko te dootu ko bàyyi Cheikh moom buy dugalee ci sëriñ buub no xool ñoo xam duñ ay gor mu dugal ko ci ñoom waaye bu dugalee ci kër gor day ñàkk fi ay goro fi nekk ay jurit lañ te ku xool ci ñoom xam ne sénégalais yi waxuma la at sénégalais bu ñu royoon ci ñii ni ñuy jàppe ak ni ñuy téye ak ak deret ni ñu metti deret kon Sénégal day jëm kanam parce que nit ku baax da ngay yiw dangay gore boo ànd ak sa mu seq yow teraa ngeen bokk deret Ablaye bu joxuloon ñii dërëm sax bu jógee ñëpp topp ko ab la ko yàlla may ñëw na fi ak ànd ay mbokkam bëggu ci dara bu soñoon moom balaa ter teral ay mbokkam ba pare góor googu nag ku ànd ak moom te nekk gor dara du la taxal ak moom kuy warati ko àndal bëgg koo def yëfu trian xoolal baadoo la waaye boo ñëwee ci biir gor gu regg nga xam ne xiiful marul dépassé ëpp na 10 000 kooku boo duggee ci moom da ngay perte sëñ Cheikh wëlbatikul ñu ànd ak say mbokk tuub sukk seen kanam ñu jegal la ay mbokk dara lañ ay gor lañ ak julit lañ te ni ñu bëggee seen bopp noonu lañ la bëggee ñëwal Touba raam te xam na nga fa nga jëm foofu du yoon wa yoon waa ngi nii ah dëkkandoom nag mooy wax loolu koo xamante ni Ibou Sow wëlëre Ibou Sow lañ Ibou Sow liñ ko xamee mooy bu gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee mu tànt fii woo julit yëpp woo tag ko ci yonent bi ñëw di tag yonent bi jàng ay xasida ñooñu am nañ lu ñuy jomb ñooñu àdduna jiitalu leen ñooñu ay dal ñu dal lañ gé law ba yi daal bu law ba yëpp mel ni ñoom man damay wóor bi doon law ba lañ sax ñun ñëpp macha allah yal na yàlla dool jàmm waaw asalaamaaleykum yéen mbooloo mi man maay Adja Atta Lo di jigéenu Ablaye Sow man habitué ma sax di wax ci ay mbooloo parce que mënuma ko mais nag Ablaye Sow ku ko tudd ma jóg Ablaye Sow ku ma jóg ndax Ablaye Sow ñoo bokk yarandoo fii mu mu mësa am jom Ablaye Sow dafa gudd rek am jom Ablaye Sow ku gisu ko ci lu bon doxu ci lu bon doxu ci day caaxaan la mu am jom la nangoo liggéey daan dooleem te wu segg bi mu am ñu koy bokk mbokk mi yëpp di koy bokk ak jàmbur ya amul kenn ko mën a waat dërëm Ablaye Sow dinaa taxaw wax ah ndax nag bi may ñëw sax xaw ma fu ma jaar ndax Sow pour la jëlee ku la tudd ñu jóg. yow yaay Sénégal Ablaye Sow mooy Sénégal waaw waaw. Ablaye laal ñu ndax suñu xol la ku laal Ablaye laal ñu ndax suñu ñu xol la. ku laal Ablaye laal ñu mooy suñu xol la ku laal laay ba. deli eh, ñii nga pikiir ñii nga joxi doom ñii nga docteur yaay docteur ci biir famille ci may leen ma may leen ma wax dama ne Ablaye Sow moo gën ci ñun Ablaye Sow moo gën ci sunu njaboot Ablaye Sow moo gën ci famille bi Ablaye Sow ku am sa soxla boo Ablaye Sow bu ko neexoon dangay ñaan audience. changé wu ko ba léegi saa yoo ko mu ne la allo tey nag soxnaam su baax Adja Nogaye Gadjaga nga yàqu ca dara amul gardien ma Ablaye Sow amul gardien kon nag Cheikh Gadjaga sunu sët nga ñoo jur sa yaay sa yaay Ablaye Sow mooy kilifaam. cheikh mbokk dañ koy defar lu lu yàq mbokk rek doom xale da koy war a moytu saw te leer na ma lii nga nekkul sax day nekkul sama ay mus ami saw ndax mbokk gi yëpp benn la waaw ndax mbokk gi yëpp benn la te nag nag sa gajaga nag ñoo la jur nag wante nag Ablaye Sow du sa morom sa nijaay la te Ablaye nag ku ko laal nag ñëpp jóg bu doon jàmm sañu jóg suñu sër nga nag wax dëgg yàlla wante dangaa laal ko wërta laal dangaa laal kilifa macha di kilifa gu mat kilifa kilifa goo xamee tubaab fa kàlla macha allah maam dafa liggéey sëriñ Touba papa Alaaji Asumaat Sow magam Alaaji Asumaat Sow liggéey sëriñ Touba baayam Aliou Sow liggéey sëriñ Touba waaw maam Aliou Sow ba mu yónni ay bërigaram bi ko ñu sëriñ Touba ca Madina loolu boobu Ablaye Sow gëneegul àddina kon nag soo pour la jéeri sa euh, taalibeem gi da see judd da see judd yaru ci te nag sans défaut fi la juddoo fi la yaroo fi la màggee sans défaut ah fi la tekkee dara kon nag soo pula jël gudd fan leen ñaan danga fi yàgg te wér sow ndax ak mbokk mbokk ku ci nekk def lu baax di ko wax di dimbali ñi nga war a dimbali ñu di la ñaanal danga fi yàgg te wér kon nag soo pula jàll fe bu tiit bu ragal ca kanam kon nag neen Ablaye Sow ca kanam Ablaye Sow si ni naana la ku am naana looy doyagul ñu sotte tallan def ci ay balam naañ retetetil am laay way yéen tàccu leen lii na la koy daje na réer neex na leenam eh, est-ce que neex na leenam ndeyam ndeyam la ñu wax doom ju baax ee eh, ni politique politique jotaay bii ah? su ngeen ko gisee nii mu demee ah Ablaye bëggewu ko nii su fekkoon ne da koo bëgg dangay wax ma xam li ngay wax waaw dangay wax loolu ma xam ma ma ma arrêté. ci géew soo gisee mu wax ci géew eey man umu si laa tudd jabar Umar Dar fii la dikk gis nga soo gisee ma wax ci géew bi man musuma wax ci géew soo gisee lii Ablaye moo tax law bi noonu ñoo gën a bokk mhm. man noonu affaire politique man sama yoon nekku ci wante soo dégg jotee may wax dégg mhm. mu seedee Ablaye lu ma def mhm. ndax Ablaye soo gisee Ablaye mel ni si tànka yaayam ak maamam depuis ci nogoy ak yaayam bu ko jur ñoom ñoo njëkk ak Oumar Dar fii ak jidd lu baax rek ñoo dog dog suñu diggante ak ñoom Ablaye ñëw moom tam di jàppale gis nga Oumar Dar bu mu dundee Ablaye Sow ay ambalong lay defal Oumar Dar dëgg la boobu soo fekkee kenn dina wax Oumar dem na mu dagga loolu wante Ablaye Sow daggul loolu dipp de boobu ba tey bu Oumar Dar gaañoo ba tey ñaari ambalong lay def jox ma benn jox wulee joo benn mm-hmm. ñun suñu amee problème fii suñu kër bi ñu kenn si ñun soo demee si Ablaye ñoo wax Ablaye Ablaye day faj du taxaw sax day faj. Mhm. dina wax yéen si ku am problème ñëw fi soo ñëwee rek dama koy fajal. Mhm. Ablaye Sow mu ngi ci suukar Ablaye saw mu ngi ci xaalis Ablaye si mu ngi ci ci yërmande nit ñi Ablaye Sow Ablaye Ablaye la. Mhm. Ablaye Sow mbokkam ak kenn ñëpp ñoo ñem ci yem ci moom. Ablaye bàyyul kenn. dëgg la Ablaye soo ñëwee fii bugg def affaire lii. il faut que ñu jàppandu mm-hmm. ñun ñëpp ci Ablaye la dëgg naa wax bii dem nee ab Ablaye day dama ko soo xeexee Ablaye soo ñëwee fii Ablaye dina ko dóor ndax ñëpp Ablaye ñuy ànd incha allah ñëpp ci ab lay ànd dégg mm-hmm. loolu ab Ablaye noonu yàlla moo koy jàppal incha allah Ablaye Ablaye yàlla Ablaye yàlla moo koy jàppal gis nga ko yàlla jàppal day dem rek day dem rek man noonu dégguma olof ku yàlla jàppal day dem rek Ablaye day dem rek day dem rek ɗum ɗone noon jiiɗo gaño e guinɗen sago Ablaye yàlla rokkudi sago ille on millaa e mbiye saw mbiye saw alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah fa tabarakallah ñu ngi deloo sant suñu borom ndax li li ñu fi dajale woon yëpp deret dong la ndax dërëm bi génnul gaal gi ak mbokk dong kenn ci ñoom moo ruuroon mbokk gi ba def ci lum mu ci def mbokk gi dajaloowaat di dindi loolee loolu rek moo ñu fi dajale woon na ma ko waxee ci commencement ba noonu lañ koy tëje ndax lépp loo gis ci ak mbokk defar rek moo ci am solo amul lu gën lu gën ci mbokk dul defar amul lu gën ci mbokk lu dul defar defar moo tax bërki démboo Njaay ci màggalu Tuubaa gii kër yaayam moom Cheikh fa añe añee ca kër ga laa jógee dem ci këram falaa laa yendu ba ngoon jot wallahi lesi ay rakk ay magam ñoom ñëpp ah muy maam Thierno muy sëñ Moustapha mi nga xam ne moom la tudde baayu Assou Gueye macha allah fa taw ñoom ñëpp kenn ku def yitte moom génn na moment boobu moom Cheikh génn na fekkuma ko fa mais xale yëpp kenn ku ci nekk. ñu ngi rot ci suuf maa ngi toog ci kaw kenn nangu ta toog ci kaw kenn nangu toog ci kaw ndax ndax lan jox nañ ma cër bi ndax lan jàpp nañ ne xam nañ maay seen kilifa taxawaay boobee nag moom mënu ko yàq moom Cheikh mënut a yàq taxawaay boobee ndax dañoo bokk démb tey soog a ñëw te mbokk googee suñu borom moo ko téyel boppam te incha allah moo koy téyelaat boppam ba ñun ñëpp ba ñuy fekk mag ñi ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun yàlla na yéex ñaan yàlla nag suñu borom may ñu ndam ci lii defal kay suñu njort ñaan yàlla suturaal Ablaye Sow lafal ko cat lafal ko ndog may ko mu àggale ci kàttanu suñu borom te bu àggalee sunu borom joxaat ko leneen joxaat ko leneen joxaat ko yeneen ci barki Seydina Mohamed defal ko ci ndam lii nga xamante ci lañ jëm mooy élection élection yi ñu jëm ah yu chambre de commerce yi ñu jëm suñu borom dimbale ko ba mayaat ko ci ndam ci barki Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam